ngeen jëf yéen ñu ngi suivre sur Wassare Lamb Wassare TV wax naa leen ko sànq ba ñuy annoncé muy ki nga xamante ne moom mooy Djily la fas yéene bokk ak li nga xamante ne moom mooy suñu euh, deuxième partie muy plateau boo xamante ni xam naa ni dayoon koo bëgg lool tey nag ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam xamante ni moom mooy bilan bu école de lutte Balla dama koy bàyyi nag mu nuyoo mi ngi nii nag def balaam bu soxor bu nice macha allah ndax dama ko nopp moo tax chaque jour rek dama dama dama koy xool ci kaw ci suuf mais Baye maa ngi maa lay fay soxna Fatima sama séeréer bi. Mhm. di la siyaar bu baax a baax a baax di nuyu képp kuy seetaan wasaare lamb di am kontaan ak mbégte janoo ak yéen comme ni ñu koy defalee saa su ne ma nekk invité soxna Fatima. def sama balaa tas yaakaaru balaa bi ci suuf a suuf a suuf. xam naa ne kàggu du mën a génnee daal di waaye. ah mais mais mais mais mais mais daal di daal di bakki macha allah. multicolore doo ko aj tuuti gars yi gis ko. waaw daal yi moom xam naa ne. kàggu doo ma jëlal nag sama daal di chéri yi looy soxor ni. est ce que du ma ko def lii sax. waaw est ce que doo ko. am na ñoo xam ne. <laughs> waaw waaw waaw waneen waneen say daal waaye gis ngeen gis ngeen bakki. sama chéri daal kenn du moom. daal di waaw Sadou boutique moo fa mu génn. waaw may siyaaraat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. ko ci lekk sa tur ak sa sant ak képp kuy bëggee wasaare lamb mhm. di wax ni rek dañuy fo ñëw nañ pour fo dañuy fo te lépp lu ñuy fo yéen rek day doon loo xamante ni dañ koy teg ci respect teg ko mhm. ci bëgg gi ñu bëgg ñu delloowaat leen cër bi am na solo mooy sama chéri nee ne chaque jour dama am contentement pour dalal ko nag mais balan bi mu def man damaa gën a miir def ay bagam multicolore da ciy baax parce ah, ji li kon euh, niñ ko defee woon rek euh, mooy bilan école de lutte Balla Gaye mm-hmm. ndax ñëpp gis nañ école de lutte Balla Gaye daraan bokk ci ñi nga xam te ni buñ jëlul euh, premier dañuy bokk ci cinq premiers yi. Mm-hmm. mais gis nañ ni léegi dafa commencé wàcc carrément ndax tey boo amee boo defee 15 combats am 7 vi 7 victoire 8 défaites ci école de lutte boo xamante ni euh, mën nañu wax ni ténor yi fa nekk macha allah amu ci yeneen écurie euh, boo gisee nag Elton def na année blanche. Mm-hmm. les les de moom waxi nopp wax dëgg yàlla moom gëj naa computir moom les deux. Mm-hmm. Balla Gaye 2 ren gisuñu ko ndax ñëpp gis nañ ni tamit mbas bi moom moo kii woon Sococim nag mais le cas de Sococim laa bëgg ñu taxaw ci tuuti. ndax Sococim dafa nekkoon école de mm-hmm. boo daan gis Balla Gaye da ko doon gis ci ginnaawam. ak les de ak ki nga xamante ne moom mooy Elton. mu dem ba benn instant ñu bari te ñaan école euh, école de lutte Balla Gaye euh, Sococim booy gis tey poids lourd sax ñoom daaw ko wuti feneen. Mm-hmm. moom dañ doon contact ak moom gars yëpp jox ko respect bëgg ko lool. Mm-hmm. mais ñu dem ba benn instant Sococim gisutuñ ko. Mm-hmm. xamatuñ sax boo xam école de lutte Balla la nekk ndax ñëpp xam nañu tëngeej mi ngi tëngeej te gis nañ ko ak mbëru tëngeej yi ñooy ànd. ñu cinq cinq. cinq ans yoo xam te ni kenn gis ko su ko sim ak espoir bi nit ñi amoon ci moom est-ce que loolu jaadu na noonu lu garaaw soxna Fatima parce que su ko sim boo xoolee bi muy dugg si ci làmb boo ko xoolee doo jaawale ni kii mbër la am na dayo bi am na bëre bi am na am na am na benn benn benn benn caay-caay boo xamante ne dañ koy wër ci mbër te mu ngi ci moom. Mhm. li ñu jaaxal nag mooy euh, ni mu commencé di am ay ndam jékki-jékki mënatu la bëre. Mhm. waxuma la dara mais ñàkk mën a bëre bi damaa jàpp ne euh, ci adversaire bi la. Mhm. parce que Sococim nekk na mbër moo xamante ne dafa weex xat xat xat xat te mbër yi am na ci ñoo xamante ne certes. bëgg nañ lu weex mais am na ñoo xam ne bëgg nañ trop lu yomb. parce que boo leen waxee Sococim laa lay jox. ñu xool taayam xool dayoom xool ni mu mel ci bëre da ngay xam ne kii Euh, jël ko duma ma arrangé. ok dañuy euh, jël obligé dem seet leneen. Hmm. mais moom su ko sim liñ ko mënul baal muy nekk mbër moo xamante ne jàpp nañ ne avenir la ci làmb. Hmm. mu toog cinq ans bëriwul. loolu moom coobereem la loolu moom la neex. Hmm. ndax tey yaakaar naa ne bu la làmb ji ñëpp mënuñoo takk ngemb ku ne ragal la tey boo bu la say morom bàyyee wala ñi nga xamante ne ñoo la war a may sens may ñu la sens am na xale yoo xam ne ñu ngi ci suuf. te war nga war nga leen a mën a may sens kon war naa mën a laale xale yooyu moo tax bi mu demee ba xam ni loolu du ko arrangé mm-hmm. moo waral mu jël Serigne Ndiaye deux bu Fass parce que loolu mooy làmb parce que làmb bul toog rek en chaque fois ni ah man de Modou laa soxla wala Balla Gaye laa soxla te Modou Lo ak Balla Gaye pour bëre yow te dimanche boo toog bëre woo rek yaa ngi perte mm-hmm. kon su ko si moom xam na ni perte na bu baax a baax a baax ci làmb ñaareelu mooy euh, écurie Tëngéej Tëngéej am na écurie yu fa nekk yu baree baree bëri mais moom dafa daf ko jaral bi làmb bi muy départ ci làmb di ñëw dafa ñëw école de lutte Père Balla école de lutte Père Balla su ma juumul bokk na ci école de lutte yi ma njëkk a dégg ci làmb ba pare ñu tàggat fa ay xale xale yoo xamante ne ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. comme ni nga wax sànq le cas de les deux les deux nga xam ni. Mm-hmm. ndaanaanu làmb la maa ngi fàttaliku tàkkusaanam bi mu bëree Garga Mbossé fële ci stade euh, Demba Diop. ñu bëre ci combat bu neex ñoom ñaar mu daan Garga Mbossé maa ngi fàttaliku tàkkusaan bi mu bëree Modou Lo stade Diop Iba Mar Modou Lo daan ko moom it mu doon xale boo xamante Boy Niang ah, waaw mook Boy Niang exact Boy Niang daan ko Demba Diop la woon léegi mu nekk koo xamante ni làmb amoon na ci moom yaakaar mu jékki-jékki teggi tànkam moom gisatuñ ko xamatuñu ci lan la nekk ñii nee nañ bàyyi na ñii nee nañ bàyyiwul te moom saa yoo ko gisee day wax ni problème mu adversaire kon mu doon écurie boo xam ne école de lutte boo xamante ni. Euh, Balla Gaye 2 bi ñu ko fay tàggat yaakaaruñu woon ni dina indi lii mu am ci làmb ba tey roi des arènes bokk na ci mbër bu ko njëkk dugal ci école de lutte loolu histoire da koy nettali. <laughs> kon moo lay wan ni làmb euh, bu ñu demee nag ba am ay huit euh, huit victoire sept sept. sept victoire huit défaite mhm. da ngay da ngay da ngay mën a yéemuwaat ci écurie bi ci ni muy doxee benn côté nag mun naa leen baal. li tax li tax ma ni mën naa leen baal mooy euh, ki ki yoroon écrit bi téye ko ci loxoom muy Père Balla ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla fëgg boppam. ba mu jugaat delluwaat ci activité yi. écrit bi daf ko jaraloon lu ne. xale yi écrit bi dañ koo jaraloon lu ne. mu dem ba yaram bi sutante euh, am na ci loo xamante ne maa ngi yow ndax wolof daf ne maa dégg boo gis bu maa fekkee ñëwee maa dégg day tuxu day tebe ne kon maa ngi yow ñoo fekkee. Mm. dem nañ këram gis ko ci ci ñu mu nekkee ñuy ñuy ñaan rek képp koo xamante ni bokk nga ci làmb te war nga cee mën a jàpp nga dem kër Père Balla Gaye nga jàppale ko. Mm. parce que nekkuñu fi nag wax dëgg yónni wuñu pour ñu ñaanal ko ndimbal. Mm-hmm. yónni wuñu pour dañoo xool ni que ni suñu papa la bokk na ci làmb te làmb da koy ndamoo. Mm-hmm. dañ koy safoo moo tax ma wax loolu. Mm-hmm. léegi nag Père Balla moom bu jagadee ba waral écrit bi am loolu da xam ni li xëy na li mu li mu jagadi moo tax bokk teg écrit yi nga xamante ni. Euh, seen entraîneur yaa ngi fa mbër yaa fa ñu ngi amuñu benn jafe-jafe ba pare defuñu parcours bu baax. Hmm. loolu daal laa amoon loo xamante ne mën naa ko cee wax. Hmm. su ko defee ma <laughs> jëmbalaat la kàddu bi sama série bi wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo duñ ci tegaat dara parce que ji li moom wax na lépp wax na lépp muy les de di Sococim euh, di ci kaal euh, ki nga xamante ni mais Elton mais Elton combat ak Reug Reug ba tey gisuñ ko. Elton combat ak Reug Reug la mujjee bëre. Mhm. Euh, yaakaar naa suma juumul euh, stade Léopold Sédar Senghor lañ woon ñoom ñaar. Balla Gaye moo ci bëre woon ak Gris Bordeaux. Mhm, grand combat. grand combat mhm. euh, mu doon koo xamante ni moom it làmb amoon nañ ci moom yaakaar. Elton mais dafa jékki-jékki nekk ci ci yenn jafe-jafe yi. mais xam nga mbër en chaque fois rek. dafa am loo xamante ne war nañ ko di xalaat ci suñu bopp. muy euh, ñu bañ a def ci suñu xel soo bëree bëree boo amee ndam gëm ni yow yaa ko may sa bopp boo amee defet jàpp ni nit moo la ko teg ki lay teg defet bu la ko mënoon teg moom du am defet day am ndam saa su bëree day am ndam waaye làmb nañ bàyyi loolu des fois nga bëree daanu ñu ñi ngay àndal sa ñenn ñu mel ni man ah waaye diw moo suul sa dàll diw moo jël sa lii diw day dem ba entente bi ñu war a am ci écrit duñ ko am Elton dafa wéet ci école de lutte Père Balla dafa dem ba dafa dem ba moo waral saa yu bëree day am loo xamante ni day dox ci xelam ba saa yu bëree doo gis jëmmi Elton mbër bu ragal defet la moom Elton mhm. moom boo gisee lu bari moom moo tax pour pour bëree pour nga bëree ndax su ma juumul fan yi am na benn combat buñ ko proposé woon mhm. mais combat boobu ñu ngi dégg mbër bi sax naan sama combat euh, muy Gris de mhm. di Diouf Elton lañ koo xool mais Elton tamit xam nga nekk na xale bu wax xamante ni dafa ragal défaite. après mais nag combat ak Gris 2 nekkoon na combat bu neex de dina am. lenn nekkoon na combat bu neex mais ndeysaan dafa ragal defet mhm. mais làmb ña ñett yi la ndam moo am. Mhm. match nul boo amee ndam nga xool li la ko may xool fi nga jaar ba am ndam kontaanaat yokkaat say entraînement jëm ci mhm. soo amee défaite xam li la ko xaj. di moytu erreur yooyu ba bu ëllëgee dootoo ci delluwaat boo niilee dem liggéey ànd ak say mbokk parce que làmb loolu moo fi nekk mais Elton euh, man ni ma ko gisee woon Elton bi bëri woon daan ko Elton bi bëri woon ak Tapha Tine malgré Tapha Tine mais dafa ñëw oos Tapha Tine ko wël mi ngang mais keroog gis nga képp ku doon seetaan ci gis na ni Elton sañee na perte bu bari ma nga doon wan ni Elton moom mu ngi ci li mu war a nekk mais nag làmb dafay dafay laaj des fois nga nga nga gën a xoolaat rafet njor moytu surtout ñu naan la moytu diw bu laal diw bul dem fii parce que yaakaar naa ne lépp lu mu am ci école de lutte Père Balla la ko amee te yaakaar naa ne temps bi mu def ci làmb gëw ma ne dina defaat lu toll noonu ci làmb. Mhm. soxna Fatima. am na solo euh, waaye dañuy dugal euh, ki nga xamante ni moom mooy Lamine fay parce que moom mooy entraîneur bi te bilan bi kat wax dëgg yàlla moom moom moo gën a mën a placé pour wax ñu léegi dañuy dañ koy déglu ñu xool bilan bi nan la ko gisee. kan mooy Lamine Faye. mooy Lamine Golo. mooy bu école de lutte Balla Gaye. maa lamin noonu lamin bëggul góor de. xam naa ko maa moom xamante nañ ah Baye Jili. Uh-huh. mu nekk koo xamante ni tey mbër la woon. dem ba benn instant di sotti mbër gàllaaj ndax ñëpp xam nañu Lamine ñu bari bu ñu demee ba découvrir ko c'est grâce à ball gay 2. Mhm. moom moo ko sotti woon sax pétrole bi nga xamante ni mooy kombaam ak Tafatin. aha Lamine golo la. <laughs> ba Balla yoroon bi di xool. ñaan naan bët mi Balla Gaye aha mais loolu nan nga ko gisee. ndeysaan mooy euh, gis nga Fatima. Mhm. dafa am loo xamante ni làmb dafa fiir mhm. mbër bu demee ba jël as tuut ci moom. jox la ko ne la dee ma ko defal nii. am na foo ko toll. boo ko fa toll rek wala wóolu wala amul ci yow confiance mm. doo ko jege. Mm. parce que am na ci mbër yoo xamante ni loo leen jege jege jege jege. Mm. loo mel ak mel ak mel ak ñoom amoo fitu jël butéel jox leen ne leen dama sottee kooku. parce xam étape bi nga xamante ni fa la toll. Euh, dafa mel ni Lamine mu ngi ci ligne bi ma bàyyi la ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Lamine maa ngi leen nuyu lamit Golo. Fatma mm. Dia. aha mm. yaa ngi ànd. Ah? yaa ngi ànd direct ci jàngatu làmb. waaw waaw. Mhm. man ak Baye Jili. Mm-hmm. Mhm. waaw maa ngi mhm. mm-hmm. mais Lamine. waaw gis nañ ne Lamine. allo man Lamine yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg dafay xaw a def tuuti école de lutte Balla seen seen bilan bi ngeen def. waaw 15 combats. 7 uh-huh. victoires 8 défaites loolu ban jàngat nga ci am. waaw kon ni ma ko waxee rek ñun moom wax dëgg yàlla xam nga tamit jàmm day sabablu rek di ñaan ak di liggéey suñu borom mooy dogal wax dëgg yàlla départ amoon nañ départ bu baax soo xoolee sept victoire yooyu moom lañ départé woon. Hmm. mais après xam nga rek suñu borom ak booy yi nga xam ne nii faraw ñu woon dem jël seen combat te mënoo leen kenn écrit mënoo leen daax soo xoolee huit combat yooyu yëpp. mën huit défaites yooyu yëpp ñett mbër yoo xam ne laa la ko mën a siddeel ñoo xam ne nii. Hmm. entraîné nañ. bëre daanu yàlla moo ko def mais ñi fi des ñëpp mooy loolu daal. dañoo jël combat sans consentement allo. allo waaw. ñu ci des ñooñu ñëpp léegi kon ñu ci des ñëpp dañoo jël seen combat sans sa consentement yow mi entraîneur bi. oui dañuy jël seen combat yoo xam ne dañ ciy gëj benn un mois la ñëw préparer combat rek toog. Mhm. ñëw jël ko seen combat dem bëri ji ko doo mën a ñàkk a bañ a gunge ndax doo ci mën dara. Mhm. nit ñee lay wax demal demal mais am na suñu bëri ñoo xam ne seen i combat dem naa fa instant mhm. moom mais nit ñi lay wax demal demal rek garaaw garaaw mais dafa demoon man mbër mhm. bu demal du ma entraîné kon bilan bi daal amoo ci lu la neex. non aw ma ci lu ma neex moom wax dëgg yàlla aw ma tane na bi ah mais moo bi ko ci sama boy yi bëri wuyul Baye Jili. li oh, waaw Basile. maa lay siyaar bu baax a baax a baax. waaw maa bu baax a euh, li ma li nga wax sànq dégg naa ko parce que nee nga am na ci mbër yoo xamante ne certes jël nañ combat. te écrit bi euh, àndoo leen ci mais te mënoo leen génnee écrit bi. loolu est que du erreur boo xamante ne parce que tey bilan bi bu écrit bi amee défaite. Euh, du mbër mi euh. moo ko am mais malgré mbër mi am na defet mais bilan bi ci euh. équipe bi lañ koy boole est-ce que kon yéen ñi nga xamante ni yéen a ŋànk du jar ngeen woowaat xale yi tëral tëral ak ñoom ci kàddu. seen seen bi day a def écho tuuti de. téléphone hmm. ah. waaw. Mm-hmm. baax na. waaw pare na waaw ma ne est-ce que du li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen entraîné ci xale yi yëpp. ngeen jékki-jékki euh, xale yi nekk ci benn jékki-jékki jël combat te mënatoo leen ko delloo ak moom léegi ba xale yi bu ñu demee bëre ji am defet defet boobu ci bilan écrit bi lay doon. Mhm. léegi est kon yéen du da ngeen a ñàkk déggoo ak xale yi nga xamante ni yéen a leen jiite ba pare mais xale yi déggaluñ leen. non non non loolu sax nga xam nga tey jii école de lutte Balla Gaye mhm. yaatu na yaatuwaay boo xam ne ni tey jii coolee fi ne mais tey jii mhm. xam école bi dëgg dëgg dëgg dëgg nekkatuñ si dundatuñ ko ne ñëpp xam nañu Père Balla dafa feebar mhm. soo xoolee encadrement bi ngay dégg yëpp école de lutte Balla mën naa ne amul encadrement sax ne cooli cooli yëpp benn man maa fay nekk di daññ daññ di sonn man entraîneur bi ak sama benn waay yoo xam ne mbëf moo a ciy jàppale si liggéey bi ñun ñaar mais soo xoolee école de lutte Balla Gaye bi ko sotal man maa taxaw fépp li ma bëgg la mbëri di def booy li ma bëgg lu ma bëggul dañ ko bàyyi mais léeg-léeg benn booy dem ñu jël komba te parewul wala mbër jox ko combat jox si combat boo yoo xam ne ni pare ñu doo si mën dara. Mm-hmm. doo mun a xëccoog moom ndax ñun ñoo moo nekk si école bi di ma jàppale si liggéey bi. Mm-hmm. looloo tax yu bari may bàyyi sax muy seet. Mm-hmm. mais mun naa si dara nag bu baax man loolu xam naa si dara. ndax mbër jël na fi combat ma ne ko doo ko fi entraîné wala combat bi woo promoteur bi. wala licence am ma ne ko kenn du ko renouvelé. mais am na combat yu bari yoo xam ne yàq naa ko. mais am na si yoo dañuy taxaw ba pare promoteur yi di la woo naa la bàyyi leen mu bëree garaawul nangam ak sangam ay ndijaay ay mbokk ku nekk di woote quoi. Mhm. après doo mun a bañ da ngay mujjee accepté dem. Mhm. mais le fur et à dañuy mujjee bëri di daanu mais dañuy xam ni tey jii la dama leen di xamal rek la ma leen waxoon a ngi nii rek. Mhm. pour su ëllëgee su ma leen waxee dinañ dégg. mais mais ma am na lu ma doon wax soxna Fatima léegi ma ne ko euh, bilan école de lutte Balla xëy na mun nañ leen ko pardonner parce que Père Balla. ku ne xamoon na ni euh, jàmbaar la woon ci écurie bi. fépp fu mhm. écurie bi nekk euh, moom moo ko fa yóbbu. tey bu mhm. demee ba ba ba jagadi écurie bi am bilan bu mel nii xëy na mën nga ni euh, li mu li mu jagadi ak li mu tawat yu mel noonu. moo mhm. waral sax écurie bi toll foofu. lan nga mën a wax ci loolu. waaw loolu lépp dëgg la moom nag ñun tey jii Baye Balla naa tey école ba muy ba muy neex dëgg mel ni ñu ne ñun ñoo doon bëri ñoo doon bëre. Mhm. nekk fa di jaayante bëggoon na. Mhm. mais li ñu gën a pénaliser mooy booy fi nekk nii coonee fi nekk rek am na mbër yi léegi Sénégal xam nga moo yàq làmb. Mhm. am na fi mbër yoo xam ne nii da xëy na dañuy dund dañuy wax waxi mbër laa mbër laa rek mais joxuñu làmb ak xam. ndax li làmb laaj duñ ko def. dañuy toog duñ entraîné duñ def ba combat yëpp ak kuñ tudd tudd école de lutte Balla Gaye ñun dañ ko doon dund. Mhm.

ñi si bëgg tey jii tey jii su ma neexoon nii mën naa laa limal damay cité. Mhm. tey jii su fekkoon cinquante bërëb fa ne naa laa cité ni sept ñoo ci bëgg wala dix ñoo ci bëgg. Mhm. Mhm. mais Lamine. ani Balla Gaye non non ay Balla Gaye bi yooyu xam nga ñoom jaratul ñu leen di tudd ndax ñoom xam nga lu leen li leen war loon ci làmb yëpp def nañ ko. Mhm. ay Balla Gaye ay Lac ay ñoom Elton ñoom ñoom bokkuñu ak mais Lamine fexe nañ ba am xam nga ñooñu fexe nañ ba seen tur yeegi fenn fenn fii. mais Lamine la mën a prouver ci làmb. Mhm.

ren gii ñoom tàmbale woon nañ di ñëw école di entraîner. fekk naa leen fi mhm. yaa may dégg. Mhm. Balla Gaye dee mu ngi doon ñëw. Mm-hmm. yaa may dégg. de mm-hmm. chaque jour mu ngi doon ñëw. ñoom ñëpp ñu ngi doon ñëw mais des fois à dañuy xool sax ñoom seen bopp moom Balla ak lettre ñoom dañuy xool booy yi sax xam ne booy yi ñun mu jàmbat ne bopp bi mm-hmm. da doon toog soxnaa leen man lettre bi ñuy toog mu naan ma xam naa ba école mel ni ñun du yomb. xam nga booy yi moo moo dul ay homme de défi Mm-hmm. mais kon léegi euh, instant bi ñan ñoo fa am combat ci école de lutte ci école de lutte bi. ay combat yu ndaw daan bëri na combat mais soo xoolee comme combat bu mm-hmm. ñoom ñëpp nañ combat à part mm-hmm. am nañ combat. seen leader tamit am na combat Balla Gaye Gris Bordeaux. kan. Balla Gaye Gris waaw ak Balla Gaye Gris Bordeaux. Mhm. waaw yooyu yëpp am na combat. Mhm. mais Lamine. Mhm. cant gërëm ngërëm ñeel na la bien vrai que ni sax xam naa ne amoo temps mais ñi ngi lay remercier bu baax a baax a baax. di la remercier naa la ñu ñëpp kontaan nañ ci am. amul benn problème Fatma Dia yow maa lay sant bu baax di leen gërëm. di xam ni yéen moom wax dëgg yàlla da ngeen di doxal làmb mais yàqoo leen ndax su leen neexoon sax duñ jëm téye seen seen i télé te seen i mais chaque jour yéen a ngi ak di dox si loo xam ne luy doxal làmb la. Mhm. ñu ngi leen di ñaan rek képp ku nekk rek li ñu ngi lay ñaanal li nga si bëgg yàlla na ko sunu borom defal. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma waxee wax ju juum yoo xam ne nii dëng la. rafet maa ngi koy jéggalu. Mhm. tamit xam ne mooy loolu daal. mais yàlla jàmm yàgg daal. macha mhm. allah. ok Fatma. jaajëf. di koy jaajëfalaat bu baax a baax moo Lamine Faye mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla xale la ji ko niñ ko waxee woon sànq mbër la woon dem ba benn instant di ànd ak mbër di ko sotti gàllaaj mu nekk léppam. Mhm. muy Balla Gaye numéro 2. tey tamit mu am li nga xam xamante ni moom mooy volonté bëgg a nekk entraîneur am fu mu jaar tey ba egsi fii jiite li nga xamante ne moom mooy école du Balla Gaye ah loolu yombul su ci xale. Mhm. ñu koy remercier waat bu baax a baax di ko féliciter kon li muy wax rek bañkat la loolu man xam naa ci dara. loolu bañkat la Lamine day ànd ak sax nit te dafa dëggu nga defoo benn kii rek. moom loolu moom nekk na ci moom mais di ko wax nag boo yore ay xale da ngay mën a toléré parce que tamit moom moo jiite te ku jiite nag dangay ngay kii da wàccee sa bopp loolu la ko olof di waxee mm. mais baa ji li li Lamine wax yépp yow nan nga ko déggee mooy xale yi démb mm. xale tey ute nañ lan mooy différence bi différence bi mooy Balla Gaye bi muy ñëw ci école de lutte bi fekk foon dara yëkkati na flambeau équipe bi ba fépp foo tudd géejawaay tudd Elton. Mhm. tudd Balla Gaye 2 tudd Lees 2. te ñoom ñett ñoom mbapatandoo. te ñoom ñett ñoo ñoom mbapatandoo. Mhm. nga xam ni kon am na fu ñu yóbbu gloire géejawaay xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk moment bi li lamin wax ñaax la ci ñoom ñaax bi mooy bu leen mujjee puso bi mu réer seen loxo li tax bu leen mujjee puso bi mu réer seen loxo li Balla Gaye 2 def ci làmb xale yi mun nañoo def plus que loolu. Hmm. parce que Balla Gaye 2 tey bi muy dugg si ci làmb malgré mën nañ ni euh, li papaam def ci làmb sax Balla defagu ko waaye Balla liggéey na ci làmb loo xamante ni jamono ji papaam di bëre defut loolu ci làmb. premier combat ñu fay ko quarante mille te xale léegi dañuy ëppal loolu. te yi léegi da ngay gis sa premier combat ñu fay la 100000 francs. ba ci 300000 sax. dañ la koy fay ba loolu léegi ci làmb léegi li nga ñàkkoon yëpp da ko mujjee am. léegi da ngay gis Fatima nekk wasaare di liggéey liggéey bu am solo nga lijjanti numéro ba am ko musoo bëre arène am nga licence wala musoo am licence doon mbër woo ko soxna Fatima man damaa bëggoon ñu def interview waxtaan mu nangul la ko ngir am na yaakaar ni ëllëg mën ngaa doon champion tey mu defal la loolu te teewul yow li mu séentu ci yow gisu ko mooy ñàkk gëm-gëm boobu sa bopp xale yi dafa am loo xamante ni daf leen yomb li leen jafe woon yëpp jafewul Modou Lo jafe keneen ak keneen daf leen a yomb. kon màgg bëri fépp. waaw léegi nag fi mu toll nii amatul kenn koo xamante ni bi Balla Gaye di débuté ci làmb coono bi mu doon daj nangu nga koo daj bu njëkk da nga yaakaar Sénégal gépp ay mbër lañ boo yeewoon fajar. da ngay gis diggante six heures du matin ba cinq heures du matin ba huit heures ci suba mbër yi rek ngay gis ñii di dem géej ñii di topp tali yi ñii jóge din ñii di jaabante léegi loolu dootoo ko gisatoo ko sax ci làmb ji da ngay gis mbër yoo xamante ne dañuy bàyyi ba 10 heures jot ñu oddoo seen saak takk seen i dàll dóor seen kii jaay doole dem salle de musculation yëkkati tuuti bu ngoonee nga dem géej sa entraîneur xamalu la dara boo demee làmb boo ñëwee dara yi bëree ci yoon kon loolu la ñaax la boo xamante ni képp ku nekk ci écrit bi bu mu ko jàppee ni daf ñoo daf am lu ñu jàppal wala daf ñoo noonu mais bu sañoon ñoom ñëpp ñu doon champion bu sañoon ñëpp doon ay champion yoo xamante fu ñu tuddee Père Balla li mu def ci Balla Gaye 2 tudd Lamine li mu def ci xale yi mm. kon xale yi nañ gën a ñaaxaat seen bopp gën a góorgóorluwaat Euh, gën a xam ni écrit bi yàgg-yàgg seen loxo lay mujj Balla Gaye wàllam wéy na euh, les deux wàllam wéy na Elton wàllam wéy na que yaakaar naa ne li ñu def ci làmb gëw ma ne at yooyu dinañ ko defaat ci làmb am na solo kon ñoom ñëpp nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax soxna bàyyi loolu am na solo mais ma lay fàttali rek am na ay avenir yu nekk foofu hmm. parce que ñoo xamante ne am nañ ci moom yaakaar ku ci hmm. mel ni gàkku de mu nekk mbër boo xamante ni macha allah bien hmm. vrai que ni ñuy wax naan guddul rëyul mais mën na bëri macha allah te ñëpp ñëpp gis nañ ni fan yi sorte yi muy def mm-hmm. ak ku ci mel ne ki nga xamante ne moom mooy Fils de Balla mm-hmm. ak ki nga xamante ne moom mooy Youssou Ndour mm-hmm. ñooñu mën leen leen lim parce que am na ñoom ñoo war a réunir jàppale seeni raq jël écurie bi euh, école de lutte bi du moins jël ko en main que tamit kon li nga wax rek kenn ku nekk génération te ñooñu ñoo bokk adversaire ay génération lañ Balla Gaye génération wéy na mooy kon ñi nga lim sànq kon donc ñooñu ñi ngi lancé benn appel muy ñoom gàkk ñoom Fils de Balla ñoom Youssou nduur ñu ñëw encadré booy yi ñoom it def fi loo xamante ne amaana génération bee defuñu ko. Mm-hmm. te Fils de Balla mu ngi jëm ci journée bu mag. Mm-hmm. diggante ma général Malika. Mm-hmm. war naa mën a wane boppam ci làmb ji. wane sa bopp nag du da ngay ñëw daan ndam yàlla moo ko yor mais boo ñëwee na nga ni entraîné naa. boo ñëwee na nga wane fulla mm-hmm. na wane fayda mm-hmm. ba kenn du la jëpp boo simee ko wane njàmbaar wane fit wane fulla ak fayda ba lu mm-hmm. la yàlla may nga jël loolu mooy làmb euh, Youssou Ndour tamit noonu oh, Youssou Ndour moom it champion la euh, ñu ngi gis ay parcours yu muy def ci làmb muy góorgóorlu muy def ay jéego mais nañ gën a yokkaat jéego yi. Mhm. gën a góorgóorluwaat xam ne yàgg yàgg écrit bi seen loxo lay mujj. Mhm. soxna Fatima loolu daal laa amoon lu ma ciy wax. Mhm. l'émission tire à sa fin xanaa dañ lay bàyyi ñu tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo di la wax ah, lan mooy sa kàddu gu mujj. Euh, gërëm ñëpp sant ñëpp képp koo xamante ni euh, yaa ngi ci wasaare làmb di ko seetaan ñu lay jaajëfal euh, di gis safoo bi ngeen safoo wasaare làmb. mbokk yi bu leen yaakaar gisuñu dara lépp ñu ngi koy gis. Mhm. ñu ngi gis lépp ñu ngi gis yéene yu rafet yi ngeen am ci ñun waaye ñu leen di wax rek ngeen gën ñu ñaanal. Mhm. ndax euh, am na fu ñu jëm te am na lu ñu bëgg ci làmb euh, buñ sañoon ñëpp ñaanal ñu ñu gën a yeggale ko ànd koog yéen euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci tàggoor bi nga xamante ni moo dul tàqali ko Euh, mhm. bien sur j' espère que vous avez aimé li lañ leen indiloon ci li nga xamante ne moom mooy plateau jàngat làmb ndax chaque jour rek ñun ñëpp dinañ ñëw fas yéene waxtaan ak yéen bien vrai que nii kon ni may waxee rek yéen ñu ñuy seetaan yéen ñu ko dàq foofu mais nag ah di wax rek ah, ku sañ ta bañ saña nangu. Mhm. te yéen wax dëgg yàlla kon ni ko bàyyi jiiri waxee amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na leen yàlla fay ndax gis nañ lépp. ci jàppale yi ci encouragement yi gis nañ lépp lépp lépp di leen wax rek incha allah confiance bi ngeen am si ñun yàlla bu mu tas di leen wax rek am na yoo xamante ni yu grave yoo xamante ni wasaare mi ngi ñëw commencé guñu nag dañuy fo ndax xam naa ne dangeen ñoo bëgg te sañuñu leen bañ a taajal dara mais lii dañuy fo rek ñu nag bàyyi ji li ousin après nag ku li ma leen wax rek boo leen bëggee rek ngeen cliquer xam nga fi ngeen di jaar xanaa di ko waat bu baax a baax moom gàkku borom ñaari soxna yi yow dangay sonn bu baax a baax kàg xam naa ne turam bi mënuma ko. waa dama koy dama koy répété rek. Ah, ah. kàggu keddu moom suñu cadreur bi yaa fi ne. waaw di ko bëggewaat nag bu baax a baax séeréer bu nice moom Basirou Diouf l'infatigable nee naa la yow kenn du yow dañ lay ñaan na rek parce que tamit encadré nga ñu daal suba séeréer waaye moom daa am rek toq boo xamante ni. lu mm-hmm. ko yàq mais du wax du wax waxu ci kaw mais di ko bëggewaat moom Adama ndeysaan mu nekk koo xamante ni mention spéciale à lui nee la yow da nga disponible baax gën kenn du yow Adama di leen bëggee waat nag bu baax a baax a baax mais jiir sama simple bi loo ci wax. sama simple bi sama simple bi loo ci wax. Saali boutique moo génn fii. ah jiili jiili ji jiili simple bi loo ci wax. waaw mais jiili war naa daanu fii. ah non ci ko ah jiili war naa daanu gis ngeen fii de laa daanu. yoroon nga téléphone bu baax. xaw ma nag loo def sa téléphone bi ba yàq ko léegi bii nga yor. bii nag simple bi waaw téye ko. pour yéen ñi may woo WhatsApp gis ngeen. <laughs> simple mais di leen bëggee bu baax a baax waa Italie ku ci mel ni Pape Sarr ma mag boobu di ko bëggee bu baax da si jàpp bu baax a baax di la wax yal na sa jàmm mm. yàgg bëggoo sax ma lay tudd taaliba Serigne Moustapha Sy bàyyi ma kooku duma ko doon ndax sama mag la Pape Sarr <laughs> taaliba Serigne Moustapha Sy bi kenn kenn du yow ndax conseiller yépp mi ngi ñëw macha allah di ko bëggee waat nag moom am di Moustapha borom Italie mu nekk koo xamante ni waaw day day leer ji mënoo ma bàyyi <laughs> waa diaspora bi ñëpp lay caw maa ngi lay béggee bu baax a baax sama magu xol boobu waa kii kan may bàyyi ma àggali Pape Moussa maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax di leen béggee ah yéen ah waa su ma mbokk internet yi tamit maa ngi leen di béggee waa gis ngeen lii xam naa ni tamit doog a seetaan xanaa balaa suba dina leer di leen jox dig daje ah <laughs> ba suba ak jàmm incha allah jaajëf <laughs> jii nii